waxtaane la nga xam ne ñoo yor communication Aminata Touré ñoom tamit ñu ko daal di tontoon ndax nee nañu Aminata Touré mbir mi du moom ak maître Oumar waaye nag maître Oumar Youm su dee am na lenn loo xam ne moom la war wax Macky Sall mu bañ a def ñetteelu mandat ndax Oumar fenn fu nekk wax na fa ne Macky Sall wurta def ñetteelu mandat ci bopp réewum loole la Oumar Youm a wax waaye nag Mimi Touré du fi nekk di wax ak maître Oumar Youm te loole sax Oumar Youm xam na ma ngi ci li quotidien xam ne moo Ndiaye ak Cissé Lo ñu dàq leen assemblée nationale bu dalee Aminata Touré moom bu mu leen bett yéene kaay gi di enquête nee na lu jëm ci mbiri Adji Sarr ak Ousmane Sonko ba léegi njaw ma ngay da su xam bi na maanaam pënd ba wureeku la ndax yàggatul danañu déglu Ousmane Sonko mën na leen jiitul Pastef yàggatul danañu ko convoqué danañu ko déglu mu wax lan la xam ci mbir mi yéene kaay gi di l'Observateur xëy nag wax ci trafic passeport diplomatique yi nga xam ne moom lañ doon tudd palais di tudd ay bi nee na procureur nag jamono ji dafa woo Mahmoud Saleh ak protocole bu présidence ngir nag bu àtte ba ñoom ñu mën a ñëw nag tribunal man koo fekke yéen kay gi du source nee na procureur kay ab citation à comparaître la nag fas yéene yónnee Mahmoud Saleh ak ki nga xamante ni nag mooy chef protocole bu présidence mooy mbiri gendarme yi ñu tuddoon ci passeport diplomatique yi te nag procès bi maanaam aju mujj yi mujj ci weeru octobre bii la ca tribunalum Dakar maanaam Mahmoud Saleh day ñëw taxawa yéen kay gi di réew mi wax ci lu jëm ci wàllum njàng meeg njàngale mi bi ñu dénk wàllum njàng mu digg doomu mi ñoom nag nee nañu lépp loo xam ne ay juntukaay la ngir nag ubbi tey jàng tey daat nay mat mat na sëkk waaye nag li nga xam ne moo jaaxal gaa yi mën na la gis nga dafa bëri ay waxtaan yoo xam ne maanaam état bi war na koo waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi waaye tamit dafa bëri ay école lu toll ci deux cent vingt sept écoles yoo xam ne dafa fees dell kum ndox te moo ne ministère bi nee na ubbi tey jàng tey mën naa nekk mën na la su passé école yooyu nga xam ne dafa fees ba maara day dafa am yeneen école yoo xam ne ndox mi nangu seen kër ñoo fa nekk waaye ministre bi moom nee na ubbi tey jàng tey lu mën a nekk la Abdou Fati ci biir journal bi moom nag nee na daal ubbi tey jàng tey ci gouvernement bu senegal la dépendre waaye li am ba des daal mooy bëri na ay problème bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne war nañu koo lijjanti te ba léegi nii kenn lijjanti wu ko yéen kaay gi di Vox Populi daal dina xëy wax ci cancer du col de l'utérus maanaam mu nekk nag cancer boo xamante ni jigéen ñi lay jàpp seen butitu njurukaay gi ma ne la faju gi cher na ba maara day tali ñu dénk wàllum nag wér gi yaram gi ci boppam nee na a nee na parti politique ñoo nekk ci Sénégal ma ne la ni ñuy jalgatee texte yi maara détaillé ndax néewaa yoo xam ne ñoo ngi def ay congrès politique am na ñoo xam ne buñ ko defee bala ñu koo defatee am na ñoo xam ne sax ñoom musuñu koo def ma ne la gis nga rapport financier loolee parti politique dañ ko war di déposé ministère de l'intérieur waaye ma ne la am na ñoo xam ne seen nga ñu nekku ci yéen kaay gi di direct news ñu xëy fekk fa Mouhamadou Lamine Massaly nee na nag moom àndul benn yoona ñuy amnistie Karim Wade a Khalifa Ababacar sal ndax nee na ñii ay sàcc la ñoo nee na Karim Wade amel na réewum Sénégal état bu Sénégal lu toll ci cent trente-huit milliards loolee kenn waru koo bàyyi mu jàlla Khalifa Ababacar Sall loxo ci poos lañ ko jàpp muy sàcc détourneur la loole nag kàddu yu Massaly la ma ngi ci yéene kaay gi di direct news yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar ñu cadre yi nga xam ne ñoo bokk ci parti bii di Pastef démb xabaar yee nee nañu Macky Sall ci boppam bu waxee na dafay wàññi dund gi loolee ci boppam kenn waru koo gëm ndax Macky Sall ci boppam mën na la saafara jafe-jafe askanu Sénégal loolee def ko intéressé wul intéressé wul Macky Sall ndax nag su ko intéressé woon mën na la o conseil des collectivités territoriales bii nga xam ne ay milliards lañ sa def te amul njariñ dañ koy jëlee ci réew mi waaye ndimit lii nga xam ne mooy conseil économique social environnemental xam ne milliards lañ sa def te benn njariñ réew mi dañ ko fee waroon a jëlee ñi nga xam ne ñooy waa Pastef askanu Sénégal bis bu ngeen gisee daal Macky Sall jëli fi HCCT ak conseil économique social environnemental boobaa nag moom su waxee bëgg naa saafara seeni jafe-jafe ngeen xaw koo gëm yéen kaay gi de la turbina nee nag Macky Sall si boppam moom wax na li muy wax moom wane na boppam wane na ne jamono ji mënul dara ci li nga xam ne nag mooy wàññi saafara jafe-jafe yi nga xam ne askanu Sénégal ñoo ngi koy dund te nag bala ngaa wax sax yow consommer local xanaa da ngay wax produire local yéen kaay gi di Rewmi bu Sénégal Sénégal daal moom suñu waxee rek mu naan commerçant yi te nag li nga xam ne mooy train de vie de l'État ñoom gouvernement bi ni ñuy dundee ci boppam loolee xaalis bu dul jeex la teewoon koo jéem a wàññi yéen kaay gii di libération xëy duñu xibaar naan ñu dan Dantec tabaxaat ko marché gré à gré boo xam ne toll na ci 92 milliards marché yaa ma neexa waaye nag loolee direction centrale de marchés publics daf cee lànk ba tëdd si naaj wi moom ak ARMP waaye nag dañoo weñ seen loxo journal bii di